international sunu info point net dalee nag jàmm seen flash d'information euh, du lundi. 4 euh, décembre 2023 dañ koy njëkkee rek ki nga xamante ne moom mooy Babacar Gueye amal waxtaan bu yaatu yaatu ak euh, presse bi donc euh, loolu la journal moom professeur ki nga xam ne moom mooy professeur Babacar Gueye moom nee am na njub ñaat parrainage bi gis na ne am na ay njub ñaat yu bëri donc am na ñoo xamante ne dañuy dañuy jënd ay parrainage donc loolu la professeur Babacar Gueye xamle ñu ñëw rek si nga xamante ne mooy Khalifa Sall mi nga xamante ne defoon na tournée fële ci Fouta moom démb caravanam bi dañ ko dañ ko arrêté mais terewul loolu nag Khalifa Sall moom euh, moom continué na wéy si euh, li nga xamante ne moom mooy tournée boobu sa ba sa Fuuta moom Khalifa Sall rek euh, moom tamit jox na ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ay conseil nee na fu mu jaar foofu la Karim Wade jaar aussi foofu la ñu bëgg jaarale aussi ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko donc loolu la Khalifa Sall xamle. donc si si démb si boobu demee tournée tournée boobu mu defi woon fële euh, euh, ca Fouta ñu ñëw rek si nga xam xamante moom mooy Youssou Ndour Youssou Ndour moom nee na moom du bokk si élection présidentielle bi euh, xamal xamal na ko si waxtaan bu yaatu yaatu bu nga xamante ne def na ko ni ki démb journal yi ñëw fësal ko. cher internet de Sene Info International Sene Info point net lii leen indiloon si seen flash d' information du lundi 4 décembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu a baax si